sajji lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraki mbokki lu xew TV ñu ngi dellu si waat di santaat yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sëñ Muntaxa ma yàgg fi ànd ak wér ñaanal ko sëñ Babacar ak kilifa diine yépp ñu nuyu ziar leen jox leen seen wàccuwaay di nuyu di ziar baax mbokki internet yi xam ni bi koor gi tàmbalee ba tey yéen a ngi suivre lu xew TV ngeen ànd ak waxtaan wi seen mbokkum taalibe sëriñ Abdou Lahad Aw nga xam ni waxtaan wi ñu ngi koy def ngir jublu ci lenn rekk mooy ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'iza wa jaadilhu billati hiya ahsan yàlla nee kenn ku ne am war nga am devoir woo jaam ñi waaye teg ko ci xarante teg ko ci xel mu rafet jëmale leen fan nag ah ci topp yàlla suñu borom ak roy kan sunu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofee rek moo tax ñuy waxtaan te waxtaan bi bëgg koo teg ci li nga xam ni mooy li nu yàlla sant ñu bokk te jëf ko war ñëpp te li nu yàlla tere ñu war ko bàyyi te bàyyi ko war ñëpp moo tax yàlla daal ni lépp lu yonent bi indi na ko ñëpp jëf bu nee jëf leen ko waaye lépp lu yonent bi ne tere naa leen na ko ñëpp bàyyi wa ma ataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu ndax it nag yàlla suñu borom dem na bay tagg xeetu yonent bi sallallahu alayhi waaye ba mu ñu tagg nag daam mu taggee te loolu képp ku bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waru ko fàtte mooy kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen yéen a gën ci xeet yi xeet yi fi jaar ñëpp xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen gën waaye nag bu leen gënee nag lan la leen gënee mooy taamuruna naasa bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar mooy day xeet woo xam ne day diglante seen biir lu baax waaye day xeet woo xam ne ni lépp lu bon doon ko war a dàq ci seeni diggante mooy ilal lazina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis mooy ñi gëm yàlla dëgg tey def lu baax moom dañoo war di déggante dëgg ndax inna allaha la yastahi min al dëgg daal borom bi subhaanahu wa taala nee na ko maslaa mooy kenn du fekk lu nga di ko yoonal ba ko def dëgg waaye kenn du fekk nag dëgg nga di ko suul bañ koo def dëgg ndax moom waxul jaal xaq wa zahaqa al baatil inal baatila kaana zahuqan dëgg moom benn dëgg la te dëgg moom rek mooy li solo leneen lu dul dëgg rek loola ci neen rek li mucc mooy fa jaxal na haba an mansuuran moo tax ginnaaw ba nu nekkee ay jullit ci suñu kaw jullit waroon ñoo fexe ba li ñuy génn ci suñuy làmmiñ na dëppoo li nekk suñu biir xol waaye nag ñun réew mi bari na fi senegal ki woote ni jullit laa waaye bu jëfee rek nga ne kii est-ce que jullit la mooy li xew léegi nii jullit ñi léegi bu demee ba am ay baar jullit ñoo ñëw di naan sàngara est-ce que kooku jullit la jullit bu demee ba jël appartement bi luwe ko ñoo xam ne ni mooy yàlla ñu koy fay ci alal jooju est-ce que kooku jullit la est-ce que jullit bu demee ba bay toog di yàq deru moroom jullitam est-ce jullit la jullit bu demee bay toog cib sëriñ tariyaax jox ko turu moroomu jullitam ni ko ni ko na faatu wala ni ko nan ko yàq fa li liggéey nan ko dàq est-ce que kooku jullit la est-ce que jullit dana mën a dimbali ku tawat yor alal ji te du ko dimbali est-ce jullit la nga xam ne yooyu yëpp tey jii ay laaj yu fi samp suñ digganteeg suñu borom subhaanahu wa ndax ñun kat. danoo nekk xeet boo xamante ni kat yàlla da boo leen booloowee loolu leen bëgg di ko am waaye bu leen tàqali ko waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu kon nga xam ni kenn ku nit ñun war ngaa seetaat li sa bopp ni jullit laa kàddu seede yi nga wax ni ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ba xam yow ni ko seedee ci sa làmmiñ est-ce que yaa ngi koy jëfee sa xol ndax it nag làmmiñ bu waxee xol ba nangu daa war a feeñ ci cër yi daa ndax it bu sa xol yàlla nekkee sa làmmiñ suñu borom ne ci say cër moom lu mën a def lu lu neex yàlla te kenn ko ne war naa fexe ba ay cëram tàmm ci lu neex yàlla di ko def sa loxo war naa miin téere alxuraan sa tànk war naa miin jàkka sa biir mën naa war naa miin lekk lu lew sa bët mën naa war naa tàmm xool lu neex yàlla say nopp war naa tàmm di déglu lu neex yàlla ndax sa cër yi ma lim nii yépp bu mu ca manti doon ba ci sa sàkkara si war ngaa sàmmanteeg moom moo bul ko dugal mukk fa la lewut ndax yooyu yëpp boo gisee ma tudd ko mooy day loo xam ne ëllëg lu la yàlla lay laaj la mu gis boobu nag al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuun moo tax loola mat a bàyyi xel mat a bàyyi xel bu baax mooy sunu diggante ak yàlla xam ni yàlla kat li mu am ci ñun mooy kat nan ko jaamu. te jaamu yàlla mooy maqaama bi gën a rëy ci maqaama yi ndax yàlla bi muy tàggoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax baatu jaam sama jaam nga lu tudd ndax yàlla mu bis boo amee doonee jaamam ba mu nangu dugg nga ci biir ngërëmal suñu borom te ngërëmal yàlla rek kama tasaat wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kaanu muminin yàlla nee kon képp kuy jullit ngërëmal yàlla ak bu yonenteem rek nga war a sàkku nit yàlla yi néewoon ci réew bi loolu rek lañ doon sàkku mos ñoo toog di wane seen bopp yàlla lañ doon wane ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñun ñi nga xamante ni ñoo wàññeeku nag def leen suñuy kilifa moo xam ngay tijaan yaa xam ngay murit yaa xam ngay laayeen yaa xam yaa xam yaa xam loo mën a doon ci tarixa boo mën a aju yëgal ni daal ba nga doonee jullit nga ca nga ca doog a mën a bokk waaye ku doonul jullit doo doon murit ku doonul jullit doo doon tijaan ku doonul jullit ku doonul jullit doo doon laayeen kon faaw sax jullit rafet te jullit dëgg mooy koo xam ni du lor kenn ci làmmiñam du lor kenn ci la ci làmmiñam waaye du lor kenn ci loxoom loolu yeneen bi mooy dëgg-dëgg jullit mooy koo xam ni man salaamal muslimuna bi yadi wa lisaani kenn ci làmmiñam waaye du kenn ci loxoom mooy sa làmmiñ li nga ci wax mooy wax lu baax baa nga tëj sa gémmiñ sa lox sa loxo bu nu la koy wax mooy doo jëf-jëf joo xamante ni kat sa digganteeg nit jëf yu ñaaw rek lay doon mooy ku la defal lu baax fay ko lu baax ku la defal lu bon it yow fexee la am lu baax ndax lu bon kenn du ko delloo kenn waru koo yor see loxo ba di ko delloo kenn ndax loolu mooy mandarga gi digg digg jullit moo tax yàlla su borom bëgg ñu ñu bokk ci xeetu yonent bi saa salaam wutal lu xeetu buntu yoo xam ne mën nañ faa jaar ba mu jéggal lu moo tax weeru koor wi ku mën a bari istixfaar na nga ko bari ndax astafurlah mën naa faj lu bari astafurlah dana faj ñàkk. astafurlah dana guddal fan astafurlah dana doolu ay xéewal fa qultu astafir rabbakum innahu kaana xafaaran yursili sama aleykum midraaran wa yumdidkum bi amwaali a banin kon lépp loo gën a mën a bari ay astafurlah ci biir weer koor wi baril ko loo gën a mën a bari ci salaatu ala nabi ndax julli ci yonent saa salam boo defee benn yonent bi julli ci yow fukk bu julee ci yonent bi fukk yonent bi julli ci yow téeméer boo julee ci yonent bi saa salaam téeméer yoon yonent bi julli ci yow junni yoon boo julee ci yonent bi saa salaam junni yoon sa yàpp yaram aram sawara nga xam ne subhaanallahi wa bihamdihi soo ko defee benn yoon ñu bàll sa benn bàkkaar boo ko defee téeméer yoon ñu jéggal say bàkkaar kon yooyu nag lan war a tàmmal suñuy gémmañ xam ni kat faaw suñu gémmiñ ñi tàmm di tudd yàlla ndax suñu xol di man di tooy suñu nopp tàmm di déglu yàlla ndax suñu xol di tooy suñu bët yi tàmm di gis lu neex yàlla ndax kat suñu xol di tooy suñu tànk yi tàmm dem fu neex yàlla ngir suñu xol yi xol di tooy kon daal nan gën a bàyyiwaat xel ni ñun daal ay jullit lañ te boo nee jullit laa ci sa làmmeñ fexe ba mu dëggu sa biir xol ndax naafeq li ko wóotee jullit mooy day wax ci biir làmmeñam lu nekkul ci biir xolam wa yaquluna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim kon seen waxtaanu gor cinquième épisode ci lu xew TV moo nekk noonu ngeen àndoon ci seen mbokkum taalibi Abdoul Ahad Aw wa ma zalik ala llahi bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh